tey dañoo gis jëfru national ñoo xam ne ñu ngi weerante seen biir télévision national muy Kaliphone Sall Adji Sarr ak Gabriel Kane nan la demee Kaliphone lañ invité ci confrontation muy commencé di dal ci Gabriel Kane di wax ne Adji Sarr ak Gabriel Kane dañ don. xeex n'est-ce pas man waxoon naa leen ko monsieur Cheikh ne woon naa leen Kaliphone dina génn dina li euh, mu tëddee ci jébbaane Gabriel Kane buñ ko faalewul dina gën a ay mbott kon une encore une fois l'histoire m'a donné raison Mister Cheikh waaw lii sax man vraiment defe naa du man kese ñëpp xamul nañ téléphone. Kaliphone euh, yag yag buñ ko joxul xaalis wala faalewuñ ko jaalewuñ ko dina génn mu mu def ay révélation Adji Sarr da doon xex ak Gabriel Kane Gabriel Kane day dund ci kaw Adji Sarr Gabriel Kane mer génn di jéem a kalifun euh, sa nan ko bo amé ay preuve gennel khalif Kaliphone nak commencé genné preuve yi waw parce que Gabriel Kane daf ko doon jéem a texel Kaliphone Kaliphone ko yow jour rema après remandement ministériel to lolou yagul Macky Sall ba mu jëlee ay ministre yu bees néna 4 quatre heures du matin Adji sar dafa dafa fàq dafa daw dem keur yaay Gabriel Kan, benen information bu ñu jox mu ne tabaski Adji sar lekul yapp dafay xuloo Gabriel Kane dafay xeex ak Gabriel Kane dëkkul ak Gabriel Kane Gabriel Kane day dund ci kaw aji Sarr Gabriel Kane nag ji wax naan euh, yow ya nga jàpp benn jigéen dóor ko yàq kanamam Adja ngir vingt cinq mille ci la nag Carrefour euh, bi nga xam ne téewul làmbinam mu ne Gabriel Kane yow mii nga xam ne nag da ngay xeex ak Adji Sarr di dund ci kaw Gabriel Kane ne Carrefour euh, amoo classe Carrefour nga xam ne téewul làmbinam ne ko yow demal ci google bi nga euh bi su ngone ne wa bu tapé google lan la ñu gis mu ne jigéen boo xam dafa doon suméku di wax né mannequin la ak na fi and ak tuba bi wane yaramam jigen bu am classe dafay muuru et cetera et cetera mais di wéranté di wéranté wéranté yu doy waar mais mën nañ wax né Californie gagné na Gabriel kam parce que Gabriel kam dafa dem ba mer daal di Californie daal di ko tukku né ko li ci kanam rawli li manam dina ko porter plainte xamna fofu lay mujjii wax nañu fa bu tudd Dior Diagne Adji Sarr nag ci la woote mais Adji Sarr dafa ñàkk solo ñàkk solo ba nga xam ne dañ ko sax coupé waaw ndax yow boo demee ba yow Adji Sarr nga xam ne kenn kenn bëggatu la dégg bu ngoonee bu demee ba coupé la Kaliphone dem ba coupé la ah naan la faalewuma la bàyyil dóor yi ngay dóor di ko wax naan ah, ah, ah Adji Sarr nee na musul wax Kaliphone damaa génne ay danga dama am ay vidéo alors ko Kaliphone ba mu invité Adji Sarr ci émission Adji Sarr dafa ne yorna na ay preuves n'est-ce pas mais vraiment euh, euh, euh, Françoise Hélène Gay. Je <laughs> xam pour jéem a ci Gabriel kan téye Adji Sarr parce que affaire bi sa ak Françoise ñoom ñaar ñoo parce que Gabriel kan dafa dafa ci dafa récupérer daal di leen écarte ñoom Adji Sarr nag dem ba tudd maître El Hadj Diouf mais loolu yëpp boo demee ay dóor la parce que maître El Hadj Diouf gëmatuñu ne moom mooy avocatu Adji Sarr Adji Sarr nag nee na dama bëgg ngeen juboo mais ñii mënuñu juboo parce que tey dañoo gën a weerante Ousmane Sonko amatina dëgg seen kaw mais Ousmane Sonko boo ko dégg lan lay wax dafa naan leen lii divertissement la Adji Sarr bu jugee dañu wax wax procès Adji Sarr ku mu yëpp ku mu yëpp procès du mës am Sénégal ndax yow ba ñu convoqué président Sonko mu génne document yoo xam ne dafa taqal euh, euh, commandant Meng colonel Meng léegi taqal procureur Bassirou Gueye taqal Mamour jàlloo sama xarit taqal Gabi Sow taqal wax ba tudd maître Diodia ñoo ñëpp ngeen may wax ay waxu procès aji Sarr ku mu yëpp diir bu kalaate Gabriel Kane xam naa dina mujj dem ba dàq Adji Sarr parce que wax ji dafa dem ba commencé ëpp kon Adji Sarr fi mu nekk am na problème bu rëy ndax Gabri nee na Gabrielle Kane moo ko fat at kii nag euh, Californie nee na Gabrielle yow da ngay jéem a da ngay jëkk nekk di dundee ci kaw Adji Sarr dund ci kaw Adji Sarr munoo ko bàyyi mu génn demul fenn Adji Sarr ci boppam wax ne des fois day xooloo Gabrielle parce que dafay bëgg gis ay xaritam ak dafay bëgg génn prisonnière mais xale njuuma yaakaar ne mën na woote pour jéem a expliquer jéem a doo euh, euh, baab Californie Californie nag nekk man mënuloo ma pap bàyyi sa dóor yi waaw vraiment gars yi liggéey kii benn vidéo bu gàtt la rek bu mu leen bëgg defal pour wax leen ne lii yëpp waxoon nañ leen ko dëgg rek koy mujj ñii dina dinañu dinañu lekkanti seen biir dinañu porte plainte seen biir parce que Californie nag fi mu laal moo metti te Gabriel kan ñëpp xam ne ne dafa am ay bras am bras droit am na nu muy demee mu porte plainte Californie Californie bu demee bay tudd ay Dior Diagne ak euh, euh, euh, Antoine Diome